En termes de dispositif, après la réunion qui a été tenue avec les responsables du Daïra Spitarkhia, mm -hmm. le message du district avait pris part à la réunion et même mm -hmm. et nous avions demandé quand même donc de travailler en étroite collaboration avec euh, le district mm -hmm. et nous avons pu mettre en place euh, quatre paiements, cest à des postes avancés. Et dans ces différents postes avancés, Donc ils ont prépositionné une équipe composée d'un médecin, d'infirmiers et des volontaires de la Croix-Rouge. Donc nous avons mobilisé beaucoup de volontaires que nous avons mis dans ces différents paiements et aussi aux alentours aussi de la Grande Mosquée. Certainement, si vous faites le tour, vous même rendre compte de ces éléments que nous avons mis aux alentours de la Grande Mosquée pour éventuellement intervenir pour au moins prodiguer les prochains pour les référer niveau de ces paiements Vous avez déployé combien d'éléments à Bon, on a mis dans ces différents quatre paiements, euh, quatre éléments. Bon, le reste on a mis un dispositif de 10 qui sont au niveau donc, euh, de la grande mosquée pour pouvoir euh, apporter les secours au cas où une situation s'imposerait. Comme je l'ai dit tantôt, nous travaillons en parfaite cross avec le MCD. Le médecin de district donc, nous a donné le moyen de transport, donc les véhicules Si vous voyez, il y a une ambulance qui est, au proportionnée au niveau de ces paiements-là. Donc le problème de moyens de déplacement, ça ne se pose pas. Vous allez même voir que dans ces différents paiements, vous avez des ambulances qui sont prépositionnées pour, en cas d'évacuation, que cette ambulance-là puisse être mobilisée pour véritablement évacuer euh, les victimes ou la victime dans une structure la plus proche, pour une meilleure prise en charge et d'une manière très précoce. alors ñu tënk ko ci kàllaamay Kocc Barma tey jii nii waa Croix-Rouge teew ci bis bi lan lañ mën a jàpp ci jumtukaay yi nga xamante ni ngi tëral ngeen ko. waaw comme ni nga daan defee rek ni ko faral di defee donc euh, ñi ànd ak euh, le médecin chef di district docteur Ndeye Maguette ak euh, éléments yi nga xam ne bii moom lañ fi indi donc ñu amal ay paiement ay ay bërëb yoo xamante ni bii dañ ko amal pour uniquement jël en charge les urgences ci loolu quoi mobiliser na ay volontaires dugal leen ci ñeent yi ñu jël noonu. ñeneen ñi aussi ñu ngi ci wër jumaa ji pour bu amee ñoo xam ne bi ci ay jafe-jafe ñu mën leen teel jël yóbbu leen ci bërëb yu ñu def ci alentour jumaa ji pour que préposition yi nga xam ne bi moo fa am ci ay ambulance ñu mën leen jël teel a yóbbu ci bërëb yi nga ne moo gën a donc pour mën leen euh, taxaw ci nu mu gën a waree waaw kon daal ñaata ñaata ñaata élément lañ mën a takk jamono ji ci ngeen déployé leen sur le terrain. bon comme je l'ai dit on a une euh, vingt qui autour de la grande mosquée en dehors de ce qui sont niveau de ces astafurlah donc comme ni nga gisee am na ñoo xam euh, toll nañ ñaar fukk ñi ñu ñu ñu mobiliser ñenn ñi ñu ngi ci poste yi nga xamante ne bii moom la teg wër jumaa ji poste yooyu nag mooy ñi nga xamante ne bii dañoo am ay jafe-jafe très rapidement suñu leen évacué ci post yooyu médecin bi def na fa ay ambulance dafa ay médecin dafa ay infirmier ak ndaw kaas yu donc yi fa nekk yu wuutee yi nga xam ne bi ñoom dañuy wër pour di wër gannaaw ci jumaa ji pour que ba amee ñeen ñu am ay jafe-jafe ñu man leen a jël man leen a yóbbu ci nu mu gën a gaawee pour ñu mën leen a toppatoo. man ma fàttaliwaat ma tudd exemple bi. waaw Aliou Dia nekk euh, Croix-Rouge fii comité départemental bu Mbacké en même temps aussi nekk le secrétaire général du comité régional.